ma parce que président ñun am na ay points on ne sera jamais d'accord. Nous ne d'accord pas d'accord sur ce troisième mandat duñ ko mës duñ ci mës a d' accord d'accord ci ngay bëgg éliminer ay nit du ñu mës a ci ñu éliminer ba pare te tey nga bañ leen may affaire ñu mën a bokkaat ma ne ko lu ci des yëpp ay waxu ay dialogue ay waxu ay électoral ay révision article L29 article L30 Il ay détails la détails. Nous ci d'accord. wante président man lu ma gën a ñor dama bëgg a dalal sa xel nga xam ne ni gaañ yi ñoo ko séqal ay ndaanaan lañu ay nitu jàmm lañu te dañ lay yéene jàmm fii kenn du la tëj kaso kenn du la topp kenn du la sonal ku ci buggul bokk bul bokk mais nag soo taxawee nga ne ñu ñun dinañ amel askanu Sénégal ak amaana suñu demee jëlee euh, amnistie laquelle amnistie a ko njëkk a proposé jëm ko défendre bu ñuy installé charte yeewi askan wi y' a un problème parce que soo jàppee ñu une amnistie ñëpp mën ci am àq man naa wax man gàddu aku amnistie moo ma gënal aku àqu ay ban ay bakken ñu rot fa et si les gens veulent continuer à parler je vous dis que je parlerai parce que man sénégalais yi ñoo ma ñor man je suis pas candidat c'est pas un problème parce que man suma problème mooy lan mooy na civil jël pouvoir te su desee ci man kese na civil boobu bàyyeeku ci coalition Yewwi Askan Wi man ànd naa fi les politiques, yéen xam ne nu ma daj ci politique ba ñuy fal président Macky Sall man maa ngi woon ci kaso bi xeex naa xeex awma ci ndam keneen moo jël ndam gi dem ak moom dama a ak tay ci di di suis man luma bëgg président bi la ci Je askan wi mom lay gëm leader askan wi man la nga président du Sénégal ak Ousmane Sonko et mon candidat s'appelle Khalifa Sall mais c'est mon droit <laughs> on continue di ngeen bàyyi wala di jël la responsabilité d'assumer jusqu'au bout parce que lu ngeen di def tegu ko fen te fi ragal dëkku fi ragal dëkku fi kat dëkku fi naa fekk nekku fi amana rek eh, trois questions monsieur le maire pour pour ñu dënk ko question bu ñëkke bi moy eh, yow da nga amone eh, image bu sénégalais amone ci yow moy nit ku tang souvent ñu ni Barthélemy dafa bari histoire et tout mo sta invité émission Walf TV nga ni ba Khalifa Sall di dem ci Macky Sall ba Covid bi ñëwee yow boo ko bokkoon nga si ñi ko doon wax ni d'accord aussi loolu lan moo am entre nag ba say discours di évoluer yow mi bañoon dialogue tey nga nekk tey instigateur bu nekk apôtre euh, du dialogue euh, politique beneen question bi mooy. Euh, cour eh, cour suprême warna addu ci fan yi di ñew ci ce procès en appel ci mbirum njaga diouf lolu eh, pen bi buñu ko confirmer mën nga ñak sa poste eh, ci assemblée nationale et même probablement ci maire bu dakar même si né nga d'accord ci ci lolu est ce que lolu aussi également épée de damoclès bobu bokul ci li la gëna pousser tay nga bëgg tok négocier ak li nga xamni moy koy moy président de la république manam ngeen ngeen dialoguer bren question bi moy dama gis ni sa discours dafa évoluer ci walum troisième mandat sank né nga ba nga jàkkaarloo ak président ne nga ko carrément amul droit troisième mandat mais buñu yégué ci gënaaw ci benn entretien télévisé bo defone ne nga président Macky Sall am na droit def troisième mandat lan mo waral ce discours évolué ci euh, euh, question mandat bi merci. a commencé foo ko les mon cher Pierre d'abord man duma juriste man suma nexé né man djumna ci mbiru question ou constitution parce que man duma juriste man bamay wax lu may wax ci référendum la won mané sénégalais la ngeen non.

mooy ba may wax lu may wax aw ma woon information qui consistait à dire parce que le juriste moom moo ko mujjee wax mu monsieur le maire lu ngeen di wax yëpp amul solo ma ne ko lu monsieur le maire président Macky Sall moom moo leen gën a xam ne amul droit troisième mandat Je ne ko lu tax parce que président Macky Sall moom xam na bu que ba président Abdoulaye Wade di falu 2000 constitution bu mu fi fekkoon bu muy ñëw 2000 limité wuloon mandat à deux donc mon constitution vous pensez bu en en 2001 je sais que la loi n'est pas rétroactive donc constitution 2001 moom commence à compter premier mandat du président Abdoulaye qui qui était pour la première fois Et mon donc constitution 2001 mon mu le premier mandat Abdoulaye 2007 ba Abdoulaye ak ñun ñu droit mu droit droit parce que constitution 2001 bi day compter mandat 2007 et éventuellement mandat 2012. mu ne ma monsieur le maire mu ne ko nam mu ne Macky Sall constitution bu fi Abdoulaye Wade bàyyi constitution boobu limité déjà mandat à deux président Euh, deful constitution bu bees ma ne ko ah bon mu ne ma déedéet mu ne ma révision de la constitution lay def ci 16 points kon moom lu mu fi fekkoon mooy lu fi Ablaye Wade wote woon ci 2001 te moom la fi fekk bi muy ñëw 2012 nee na ma lu constitution boobu waxoon ci limitation des manda moom constitution bu mu laalaat moom la waxaat rek ci limitation des manda la constitution le mandat prestation de serment comme le président Macky Sall ne ko ah professeur ba waxuma je ne ma ah ne ku nekk yem ci xam-xamam je ne sais yow waxu politique je xam élection ne sais ah, pas donc côté Sénégalais si j'ai induit des Sénégalais en erreur leen wante man nekkuma fii pour di téema tuur lëndëm nit ñi wala di lëndëmal xelu nit ñi ça m'intéresse pas bon beneen bi loolu laa bëggoon wax ci sa question concernant ma position sur l'évolution du discours sur le troisième mandat non et je considère aujourd'hui que suite la discussion boobu moo am ak constitutionnaliste boobu tey heure bi ni président Macky Sall amul droit am troisième mandat wante moom wax dëgg yàlla waxuma est-ce que day def troisième mandat wala def troisième mandat mu ne ma da ngeen bëgg ñu waxtaanee ko mu ne ko waaw mu ne ma ok d'accord dëgg naa la mais loolu xanaa mën nañu ko waxtaanee comme moom nee am na ay argument ñun am nañu ay argument beneen bi yaa ngi ne euh, nu ma gars yi doon xoolee man nit bu tàng laa woon daanaka ci gàttal sax nit nitu fitna laa woon ah, waxoo sax lépp parce

du politique parce que xel moy politique xol du politique ci politique xel moy xex, xol du xex. ma gis président Macky Sall téye bañ a ma gis suma gaañ ñu téye baña a man mi tamit ma bokk tamit ci gaañ tamit di téye ma xam tamit suma bopp ma ne ah comme jàmm wolof ñay na na ci lepp a xaj naa jéemoo lancé appel comme président joxon naa ko lettre nekkoon na ma dalal pour mairie Dakar mu mu ignoré ma tontuwu ma ne ah, lancé un appel public le 26 janvier 2023 sur Walfadri et sur Sénéweb en grand format j'ai lancé un appel et à partir de cet appel là pour naa leen lépp lu ma def yaa ngi wax léegi nii lu tax ma assagiru <laughs> dama am ay doom yu góor

donc tay, du ma doon def yaa dix ans ci ginnaaw tey di nekkatul suma cër man ba ma naroon xeex xeex naa Sénégal ba ma naroon euh, tëdd kaso tëdd naa j'ai tout fait dans ce pays moo tax tey su ma déggee ñenn ñi di wax ne ni que ñoom lu ñu dund lu ñu vivre kenn mësu fi dund Senegal. dama ne Sénégalais yan laay waxal fii am na benn góor bu ñu doon président Mamadou Dia Yalla nako yalla yàlla xare ci àjjana yu gën a kooku duñ ko def Sénégal yàlla buñ ko fi defee ci doomu Adama Sénégal kooku xeetu toroxal buñ ko toroxal Sénégal yàlla buñ fi mës tox toroxal ci ñit Sénégal euh, de cette façon jamais de la vie kooku moo nekkoon équivalent au premier ministre tey parce que génération future yi xamuñu il faut ñu xamal leen kooku dañ ko jaay doole tëj ko kaso bañ koy tëj kasso Sénégal lu fu doon yewu ci ay doomu aadama matuñu won 5 millions la wax bi Sénégal bi yépp ñu boom fii Sénégal bi Dakar fii ñu boom lu ëpp 100 personnes surtout fii centenaire doo leen ay bal ray leen 100 personnes jamono boobu amul internet jamono boobu amul réseaux sociaux jamono boobu amul journaux jamono boobu benn parti politique rek moo am Sénégal donc il faut savoir raison garder tey wax sénégalais yi l'homme qui a le plus souffert au Sénégal s'appelle Mamoudou Dia De Kasso, 12 ans génn Nyaka ay il est mort aveugle kooku lu mu daj pour Sénégal yàlla bu kenn pour le Sénégal respectons les Sénégalais ku nekk ci ñun fii xeexal nga Sénégal ci lu nga mën ak loolu mooy dëgg beneen bi yaa posé la première question c'était Ndiaga Diouf ah mais mais Pierre <laughs> mais yow Pierre il yaa doon xam ne man dañ condamné tu le sais Yo, xam nga ne dañ may condamné Pierre mais parce que Pierre Sénégal wax nañ ko justice bi wax dëgg yàlla justice bi kenn amatu ci yaakaar kenn amatu ci yaakaar tey posture Ousmane Sonko je du ma ko commenter, ma ko commenté dama ko c'est son droit. man munuma xas kenn kuy jóg tey ne man daw ma wuy tribunal man ñaata yoon lañ ma convoqué fii ma ne man ñëwuma yéen xam ngeen ci dara fekk ngeen lépp yéen da ngeen fekkee démb ak bërki démb Sénégal bi dara beesu fi fii gars yi ñooy fay seen xel rek dara beesu fi fii tey am na benn candidat su amee élection suba moom day bokk mais apparemment ci du ñuy gis ñun parce que ñun ay acteurs politiques lañu yéen ay observateurs politiques ngeen yéen xam ngeen bu baax que ñu ngi koy jéem galgal dara beesu fi xanaa Khalifa Sall kenn kenn galgal ko fi lu tax ñu galgal Khalifa Sall parce que lu sondage yi waxoon mooy su bokkoon élection présidentielle 2019 amoon na làmbaay ñaaw kon fii dara beesu fi mais Khalifa Sall bañ koy tabaxal tëj ko ci kaso bi fokkati ay mandaam musul saalit musul saaga kenn musul xas kenn musul gaaruwaale kenn teg ci nag képp ku bëggoon candidat musul Khas sa candidature képp ku fi campagne musul Khas. xas teg ci Kasso. tëdd kaso ay ñëpp ñëw di ko fekk si ci kaso bi di sàkku ci moom son soutien Khalifa Sall a été digne jusqu'au bout Khalifa Sall mérite wul tey luñ koy teg te dama ne dañu dul toogati di ko seetaan yéen lu ci kan lu bët dañ dem rek. ma ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf non dans l'affaire de Diouf ma ñëw dans l'affaire Ndiaga Diouf dañ ma jugé première instance man leen da nga ne ma jaay doole damay appel ñu ne ma bu appel parce que ñom bëggu ñu appel nang ko yamale fi ma leen su ngeen ma condamné won ben fan ak ma fay deureum la wax deureum dërëmu euh, à l'amende damay appel ma dem appel gay jaay ma doole wa ku jaay doole première instance jaay na doole appel mais dina la jaay doole cassation xamna président Macky Sall sax xam dafa xaw jaxlé quoi parce que xamna il doit se poser la question lu tax Barth waxul ci waxu dossier Ndiaga Diouf parce que kippéewu ma ko dundu ma man xamna dafuma dara. maintenant nag dinañ ma condamné loolu ñëpp xam nañ ko man xam naa dinañ ma condamné les conséquences dina perte suma mandat député xam naa ko wante man assemblée bu nga xam ni man xam naa ni que fi ak at dañ koy tass man nga dàq ba ci assemblée bi ak ñak ma dàq ci assemblée bi man lolu lolu yëngalu wante fi mairie Dakar dama bëgg dalal sen xel parce que wolof jaay neena say say waxul deug wante mi ngi jema yak xel xalat xol ak yene avocat je vous invite à aller consulter maître Dembesiré Batini et maître au besoin cher je resterai maire de Dakar et ce n'est pas un souhait que je dis ce n'est pas une opinion c'est le code de procédure pénale je ne serai pas déchu de mon mandat de maire ils vous donneront les éléments d'appréciation j'ai répondu à tout il reste encore Partiu o Elfo do Jural. âme, ô sang et eau, qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de miséricorde pour J'ai confiance en toi. Bon, dama lay laaj yow. Hmm,